ngeen ñu baal ma bu fekkee li ma bëgg a wax garaaw na na ma ko kamaal baal mm-hmm. baatu ñëpp. Mm-hmm. ñëpp xam nga mooy duma. Mm-hmm. xam nga rajo dafa bokk rek sant nag. Uh-huh. rajo dafa am waxin bu mu laaj. Uh-huh. ah bu dee baatu ñëpp gis na ci uh-huh. ñoom. ñu jéggal ma ko waaye du du saaga. mooy duma. maam buubu ndaw bu ko masaa dégg ku ko wax morom ma. mu xam. waaye kooku bu dundoon jamono ji bu déggee saaga yi façon saaga yu bees yi am. arrivage bii ñu wàcc arrivage bu garaaw la ñu wàcc. waa kooku bu ko déggoon du xam day dee. mais fu nit ñi jëm. est réew bu ñu demee ba ñu yiw ñi ñëpp ñu bëgg leen a toroxal. Mm-hmm. mais yàlla danaan coppeet ñamu am yóbbu. Mm-hmm. danaa indi tegtal nag. Mm-hmm. ma la oustaz. yonent yàlla Ibrahima gàddaayoon na wala gàddaayul. gàddaay na. yonent yàlla Lóot gàddaayoon na ànd Ibrahima wala gàddaayul. gàddaay na. yonti yàlla Moussa gàddaay na wala gàddaayut. gàddaay na. yonti yàlla Noox gàddaay na walla gàddaayut. gàddaay na. Seyduna Muhammad gàddaay na wala gàddaayut. gàddaay na. ñoom ñëpp lu nu gàddaay yiw wala yiwa di lañ gàddaay. Mhm, yiw. yiwa di lañ doon daw. waaw. Mhm. Ah. dem uuti yiw. Mhm. afa ardullahi waasi'a fa tuhaajiru fiihaa. waaw bu dee foo dem fekk fa yiwa di nooy def nag. moom nga bàyyi leen fa te dem rek. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nga dellu ci sa borom mhm. lii kat moo xew mhm. yàlla ñi mu fi am mhm. dem na ba ni nit ñi ñàkk nañu yar gas mm-hmm. ñu teggin ci mm-hmm. ñoom xajuñ ci yiwadi mm-hmm. ci moo leen fi tegoon mu ne leen kaay leen gàddaay amu fu ngeen dem fekk fa saaga yi ñëw leen fii ci man ma teral leen baleen leen ak àdduna ñuy réelli réelli jamono dana leen yar ndax am na nguur su ma fa yebal bu wax korona mu nga fa ah loolu ci man koo dajal mu ngi ngaaw gémmiñam mel ni daa borom bopp konde yu mu jox la conc mm-hmm. bu ñu xëyee ñëpp seen programme mooy lu ñuy wax ñaata kaa am mm-hmm. Mm-hmm. waaw boo nanguwu la fat yàlla ci sa xol yàlla yabal la koo fat ci sa xol gis nga mag ñi aaroona yiwa di waxuñ ci dara ci bu dëgg di dëgg yiwadee xew ci réew mi ñàkk suturaa fi xew wax lu la neex a fi xew kenn amatul kilifa ku ñu amul kilifa nag mag mu bëgg sutura dafay moytu milieu yooyu mm-hmm. lii kenn xamul lan la mm-hmm. sañ-sañ yu ñàkk teggin yi mm-hmm. wax lu la neex ci ku la neex ak na mu la neexee dara du la ca fekk ah loolu nag mag ñi àttanuñu ko nag. Mhm. ah àttanuñu ko aaroona. wallaahi yow moomu xam naa la. Mhm. da ngaa fàtte conférence. Mhm. ba ngay waxtaan di waxtaan kenn joxewul dara. waykat yi way ñu di leen sara. ba nga jëlaat ci micro ba loo leen wax. <laughs> da ne leen dootuma wax benn baat. beeg mm-hmm. joxu leen ma. Uh-huh. lu tax may waxtaan joxu leen ma kii di way ngeen di ko jox. waaw. <laughs> loolu mooy dëgg. <laughs> mais aaroon uh-huh. gis nit ku yiw mm. wallaay xajul fu yiwal mm-hmm. réew mii mm. lii ma la wax noté ko mm-hmm. yu rëy yu garaaw dina fi am mm-hmm. maa la ko ñàkk teggin gi xew mm. wax lu la neex ku la neex saaga ko ndey ku la neex saaga ko maam ku la neex saaga ko bàjjen ku la neex saaga ko tànk ti doo ko yëgal sa yaram réew mu mu nekk yori bagage sooye boo deferul téye sàkk kilifa yëpp a tiit. Mhm. kilifa gu la ne tiituma dalay ndax. Mhm. Mhm. ñëpp a tiit. parce que kilifteef jeex na. fu ñuy jële maam Cheikh Ibra Fall ci wetu sëñ Touba. fu ñuy jëlee maam Mor Mbay Siise. fu ñuy jëlee maam Mor Mbay Jaxate. fu ñuy jëlee maam Saxiir Lo. ak ñi ci des. Sëriñ Isaa Jenn. fu ñuy jëlee Serigne Alioune Guèye. fu mhm. ñuy jëlee sëriñ Moussa Niang. fu ñuy jëlee Serigne mhm. Mamadou. Mhm. fu ñuy jëlee Serigne Seybatou Fall. fu ñuy jëlee Serigne Hadi Touré. fu ñuy jëlee. maam ma Guèye Ndiare ma ca wàq. maam El Mor Ndiamaka. maam El Hadj Ibrahima ca xor ji ca Siwol. maam Boubacar Ndaw ca Kàccal. mais fu ñuy jëlee ci ñooñu maam moo xujjee sa mbir ci fan la ñuy jëlee ñooñu. nga xam ne bu Maodo toogaan dañuy sëgg mel ni ñu ay ñàngoor wa mm-hmm. waaw léegi buñ demee nag mm-hmm. te xale yi danaa leen dénk lenn de mm-hmm. am na lu seen benn maam waxoon nee ku wéeruwul day yomb ba ma defe naa maam Mor Mbay jaxatee ko wax am déet waaw waaw woyaankat bu bi nekk waaw loolu <laughs> noonu la kay noonu la waaw noonu la day yomb ba ma hmm. noonu la waaw loolu la waxoon hmm. sëriñ Cheikh ne hmm. yu mag yi xam nga fu ñuy commencé dañ lay xeebloo sa kilifa suñ la ko xeebloo ba yëg ne xeeb nga ko ñu xam ne amatoo foo dëkk ñu bamax la nga daanu wax na dëgg ñu bamax la nga daanu fële ci la ñu toll fi ne ñu ngi dox ci xelu xale yi di leen xeebloo kilifa yi diine yi di leen ci wax loo ay safaan. Mm-hmm. suñ demee nag ba ñu ñu fi amoon ñuy suñu sauvetage. Mm-hmm. ah aaroona kaay nag. Mm-hmm. ko xeeb borom xam-xam. xeeb sëriñ ne amul. lu tax ba sa kat di lakk nga woo sapeur pompier. <laughs> Uh-huh. ah. lu fi def lu fi police di def. lu fi gendarmerie di def. lu fi tribunal di def. lu fi sapeur pompier di def. lu fi douanier yi di def. la boo gëmee ne ñooñu dañuy régler situation. Hmm. ba leen yàlla dénk ci àdduna. Hmm. gëmal ne noonu la jëlee nitu yàlla yi ñu koy régler yeneen situation. Hmm. xale yi moytu leen. ñi nga xam ne dañuy dox ci seen xalaat. di leen xeebloo mag ñi. man de xaw ma ko bàyyi Serigne Touba. Mhm. baa nga bàyyi Seydi Hadj Malick. Mhm. bàyyi maam Amady Ndaak Seck. Mhm. bàyyi mag ñooñu koo war a xanaa du wuyu bu mel ni Iran. baa wut nag mu mel ni Iran. na foogu ma ko. bàyyi ñooñu. aaroona kuy kii. est-ce que kenn. mais kuy amul dëkk. nekkul ci dëkk. maam El Hadj Malick nekkul ci. maam mm-hmm. maam El Hadj du Baro nekku ci. maam mm. Cheikh Boukounta nekku ci. maam mm. Amari miin bu fekkee mag mm-hmm. li ñu nekk du dëgg. Mm. kon ñun Sénégal nañu ànd ne dëgg amul. Mm-hmm. am de. wallaahi. nañu dàkkoon ne dëgg amul ñu ñëpp bu ñu xëyee ñu dox ci ay tappale rek. Ah, waaw. kuy rang banque bee. xam nga ne tabax ba taxul de. la uh-huh. ca biir tabax baa la fa tax a yenn. jël sa gémmiñ gi ŋaaw ko nag. Hmm. di ci yuut ak say hmm. baqate di ci dee. Hmm. nga toog fa rek rang xaalis. boo demee ba yegg jël li ngay jël compte dem. ñu ne la nitu yàlla amul solo te banque am solo. te banque la fa ne nit ko fa dugal. nga ne gëmoo ne yàlla dugal na ci sëñ lu luñ ko war a rangé. wala dugal na ci Cheikh Omar luñ ko war a rangé. wala Mame El Hadj Ahmadou Baro def na ci luñ ko war a rangé. xam nga da ngaa topp sa bakkan te naa fekk rek. <laughs> la ca banque ba ku ko ko tabax banque. Mm-hmm. nit nit. nit a ko tabax. Mm-hmm. xaalis ba ca biir banque ba ku koo liggéey. Mm-hmm. nit su nit a ko liggéey. ka fan ne di di régler xaalis ba ko liggéey bi yàlla. yàlla liggéey nit jox ko xel. mu liggéey ci xaalis nga gëm xaalis gëm banque ni gëmoo nit. est-ce que. xale yi góor góorlu leen. wallaahi bu ngeen sàgganee ba ñàkk kilifa. Mm. danañ leen xëy ni leen ci kaso bi raw. bu ngeen dékk mukk ko leen wàllu kilifa mm-hmm. mm-hmm. baax na de kilifa mm-hmm. baax def nga ne li maam bàyyi si Ahmed Tidiane si sekk def ñu ngeen dem mu teeru leen recevoiral leen boppam mm. di ngeen di ay ndaw mm. mu mënoon leen booleeg doomam mm. baa boole leen ak taalibe comme yéen mu recevoir leen -hmm. waaye moom mu recevoir leen -hmm. koo ngi jàngale wallaahi ci man mii nga xam ne wëndëng laa -hmm. bandi laa rek léegi leen ni seeti ma du gis Mm-hmm. waaw waaw. Mm-hmm. léeg-léeg euh, Tafa ne ma. Mm-hmm. am ko ne seen ma ne ko ne damaa sonn. damay doog a yegg ah moom daa moom sonnul di. di woowu ma téléphone jëfandikowul alxuraan. Uh-huh. alxuraan nee na koy seeti avertir ah, ko. bu la joxee rendez-vous nga dem bu la joxul nga topp. waaye xëy xëy na jameet. Mm. ñu ne maasa lay seet. Mm. damay elaw. Uh-huh. <laughs> ah waaw. <laughs> dëgg la tout ça laata duxuloo buyoota. yeggali ko. xayra buyootikum hatta tastanisu ah. ah mm, wa tusallimu ala ahliha jeex na mm, mm, bul seeti nit mukk di avertiroo ko Iran moom xaw man sama numéro téléphone comme perti suuf si ne la xaw ko waxul dëgg mais nit ki boo ko jotee baax na boo ko jotul nga xam ne xëy na daal nga waaye xoolal ba ngeen demee ku toll ni xalif général canaba ak xalifa cheikh ni mu toll ak xam borom xam-xam ni mu toll. Mm-hmm. ngeen dem mu dagg itteem recevoir leen. Mm-hmm. waxtaan ak yéen. Mm-hmm. jël alalam jox leen. ñaan ci bis bi. gàmmu googa na mu mel benn gàmmu melul. am de. yaa ko dirigé wallaay dëgg la kay. Hmm? loolu rek doy na mbaax. wallaay seede bii rek. ba am na ñoo xam ne waxumaay xalif général mhm. am na ñoo xam ne yorunu dara ci Cees googu mhm. Mhm. ak man mii su ngeen leen seetoon du ngeen leen gis Pape Gueye ngi noonu am na ñoo xam ne gisuleen dëgg la lu mu yóbbu carte maam wali dana dem foo xam ne du gis kooka daf may oo ne ma élage nu may def ma ne ko jox ko ki na rek jeex na parce que yëgle la wutuñ ci xaalis dem ku ngeen fa fekk rek jox leen ko ko mais yow nga dem fekk xalif général. Mm. mu recevoir la. Mm. waajal enveloppe. jox mm. waxtaan ak yéen. ba manoon ngeen wàññeeku. ndax mbégéré googu doyoon na. et pourtant mbégéré googu leen jox courage ngeen continuer. am déet. waaw Haroun yaa dirigé wu. wallaahi wallaahi dëgg la Thierno Ibrahim. voilà loolu nag ku la ko defal. Mm-hmm. su fi jógee loolu rek doy na seede. Mm-hmm. te xam ne borom yëg la. wala oustaz ba oustaz ah. da cee boole sax sirru bu jo ñu jox. waaw. Aaroona mm-hmm. nee na boole ne sax siru man nag tudd naa xaalis bi. waaye moom tuddul siru bi man waaye ah, ah, aaroon daal siru ba da koo denc di ci fay soxlaam rek <laughs> su ko defee yooyu mhm. yooyu dafa am solo ci sunuy mag wallaahi kon xale yi góor góorlu leen mhm. moytu leen sama kalaas yii mhm. nga xam ne dañuy yàq xale bu leen déglu da ko gëm taaliwa ngi nii toog dafa am ku mu euh, ku mu nekkal moom ñeneen maa ngi leen di déglu de ba kooka pare bi may ndogoog ñoom ma ne leen dégg naa seen waxtaan wi de. Mm-hmm. ma ne ko kii nii mu waxee. Mm-hmm. saali mu ne ah ma ne kii daaw lu waxee nii de. Mm-hmm. kon déglu na. ku wuuteeg ka mu daan déglu. ba yàq na xelam. xale yi koo wax rek léegi bëggatul kilifa. ah loolu fu ñu jëm. fu ñu jëm. léegi wëndang ku ñàkk kilifa di taxawaal. soo amee problème buñ la ne yow kuy sa kilifa looy wax. xam nga looy wax. danga naan mbedd mi. Ah. leen mbedd mi mhm. la grand sëriñ waxoon mhm. euh, nee na dof ba daf ne mhm. man de sama jaaxle gee ma jaaxal da nga waxee ni nee na dof baa ko waxoon nee sama jaaxle jii moo ma jaaxalaat waaw waaye yow buñ la jàppe xam nga lay wax suñ ne la looy jooy nga ne sama ñàkk kilifa gii moo ma jaaxal waaw grand sëriñ nee na dof ba daf ne man sama jaaxle jii moo ma jaaxalaat